Je me nomme Amadou Dien. Je suis le coordonnateur communal du modèle. Coordonnateur communal euh, du modèle. dañoo woote woon ndaje mi nag ngir am loo xam ni dañ ko bëggoon a waxtaane yëgalaale koy kilifa yi muy jëfin yoo xamante ni si kenn koo xamante ni si dafa bokk ci ñun muy Abdou Gning di haut conseiller collectivité territorial mi ngi koy def muy depuis jamono bi nga xamante ni si ñàkk na communauté rural bi ba léegi jamono bi nga xamante ne si ñàkk na communauté rural bi ba léegi dañoo seetlu ni ay jëfam lépp daa woroo ak looy tax li président santaane ci commune ba maanaam coalition Benno Bokk Yaakaar ñu man koo def ci misaal bi président di changer constitution bi bi ñuy wër di campagne di voté non ñu Gningue moom da doon wax nit di di voté di voté wii Abdou Gningue moom da doon wax nit ñi nañ voté non élection législative yi fi nekk ñi nekkoon yi fi jaar ñi demoon ci terrain bi yëpp xam nañ ni Abdou ñu ngi da doon voté contre la liste de Benno Bokk Yaakaar présidentielle yi passé également loolu la santoon ay militants yi nga xamante ni si moom am na ko ci commune bi balu yàggul dara bi fi suñ xalifa bu tedd boobu jógee muy Baay Cheikh Ahmed Tidiane Seck yal na yàlla yokk ay leeram bi président ñëwee di bokk ak ñun métit woowu yëg nañ ni moom la opposition bi àndaloon pour bëgg a saboter ñëw président boobu ba ya ca xew yëpp yëg nañ ko duñ ci dellu jamono yii mi ngi jël teraanga ji nga xamante ni si moom la ko président defal muy haut conseiller collectivité territoriale di ci dajale opposition bi ànd ak ñoom xamuñu ndax lan ndax opposition bi gën a contre président de la république ñoom la àndal lu ñuy def moom lañ cay jiital ñuy xamal kilifa yi ni leen nag loolu moom dootuñu ko mën a nangu Abdou Gningue na doon comme na doon militant coalition Benno Bokk Yaakaar wala mu génn coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ngi sàkku nag ci kilifa yi ndax politique moom politique ci terrain bi la am nañu ci nag pexem politique waaye comme ay kilifa la ñu nekkal te dañuy wax toujours lu ñuy def ñu teg ko ci yar ak teggin ñi ngi xamal kilifa yi ni leen Abdou Gningue moom nañu ko woo commission de discipline xamal ko ni ko doxalinam tolloowul ak bëggiinu coalition Benno Bokk Yaakaar su mënta delloo teraanga ji ko président jox comme moom fi mu ne ab opposant la nañ ko dàq mu génn carrément ci coalition bi ñu xam ni ab opposant la su dul loolu nag ñu nag moom ci terrain bi na leer naññi dootuñu ko bàyyi benn jotaay muy yor teraanga ji ko président jox ba pare nag di ànd ak ay nooni président di jëf jëfin woo xam ne day gàllankoor li président santaane je cette information au nom de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Avant cela, je commence d'abord par saluer le khalife général de Thiénaba, lui souhaiter longue vie et prier le bon Dieu pour que le vénéré khalife qui vient de nous quitter tout récemment repose en paix. Par, ces, par, par cette même voie, je salue également le coordonnateur communal de Benno Bokk Yaakaar pour être très vif bon nous nous allons entrer dans les détails c'est-à-dire l'objet de notre rencontre depuis quelque temps nous avons constaté des agissements inacceptables de la part des militants qui se réclament de Benno Bokk Yaakaar en, en l'occurrence monsieur Abdou Nying nommé au conseiller du collectivité territoriale par le président de la République. Nous avons constaté que depuis sa défaite au local de 2014, monsieur Nying ne cesse de poser des actes à l'encontre de la coalition Benno Bokk Yaakaar. On peut citer les, les élections référendaires auquel M. Ning avait demandé à la population de voter non. Au cours des législatives également, il a demandé à ses militants de voter sanction contre la liste de Bernard Bokoyakar. De même qu'aux élections présidentielles. Tout récemment, M. Nyingui était utilisé par l'opposition pour saboter la visite du président de la République à ba au moment où l'on parle, il dirige une coalition auquel se trouvent tous les partis radicaux de l'opposition. Par contre, nous ne pouvons plus accepter ce genre d'agissement de sa part. Nous demandons au Conseil de discipline de Benno Bokk Yakaar de lui traduire, de l'auditionner pour savoir réellement c'est le pourquoi de ces agissements si euh. nécessaire même prononcer son exclusion au sein de notre coalition à partir d'aujourd'hui il est important d'informer les autorités que nous ne pouvons plus accepter de tels agissements de sa part force est de constater que nous sommes prêts nous sommes prêts j'ai bien dit pour que pour qu'ils cessent ces genres d'agissements qu'ils nous disent s'il est de l'opposition ou de la coalition Benno Bokk Yaakaar monsieur Gning est impliqué sur tout ce qui se passe au sein de la coalition Benno Yaak Benno Yaakaar il bénéficie également des largesses du président de la République parce qu'il est nommé il n'est pas élu mais plutôt nommé au conseil des collectivités territoriales donc il bénéficie des largesses du président de la République à partir d'aujourd'hui la coalition Benno Bokk Yaakaar par ma voix informe les autorités que nous sommes prêts à poser tous les actes nécessaires pour contrecarrer ces agissements. Je vous